sant yalla di julli ci yonent bi di len rafetlu sen liguey di fàttali ne aussi euh, boru 11h37 la yegal yëgal amna ben immeuble R plus 1 bu daanu fi ci cité euh, cypress fi ci département de Rufisque buñ ko déggee ci saa man ak gouverneur ministre de l'intérieur intérieur ñu ñu déplacé wu joggé Dakar agsi embouteillage sax mo tax ñu xaw a yéex a agsi préfet bu Rufisque dalal nañu ànd ak aussi commissaire bi ànd ak kilifa dëkk bi yépp muy maire bi mi ngi taxaw nii muy maire yi commune ko west muy délégué de quartier bi muy imam bi muy en tout cas ñi fi nekk ñëpp doon ay dëkkandoo te waroon fi jiitu te jiitu fi itam bi ñu agsee li ñu fekk ci terrain bi moom mooy euh, brigade nationale de sapeur pompier am fi liggéey bu rafet bu mucc ayib ñu àndoon ci ak génie militaire àndoon ci aussi ay structure privée ay doomu réew mi yore ko lu melni ni Sococim nekk fii ci Rufisque lu melni ni ak yeneen structure privée ñu nekkoon ci liggéey 11h ba waxtu wi ñu nak bilan bi ñu mun a jàppandi jamono ji may wax ak yéen moy fukki nit ak ñett am nañ ci ay jafé jafé fukki nit ak ñi yooyu juróom-ñaari nit ñi yóbbu nañ leen hôpital bu Youssou Mbergane fi ci Rufisque kenn ki yóbbu nañ ko hôpital principal génnee nañ juroomi koor yu àndul ak bakkan ci liggéey bi nga xam ñu ko doon amal fii ci rifisque ci sama tour ci turu ministre de l'intérieur wante surtout ci turu njiitu réew mi muy président Macky Sall son excellence ci turu sama naataango gouvernement bi yëpp ak kilifa yi ma àndal ñu taxaw fii muy gouverneur bu Dakar muy préfet bu rifisque muy maire bi muy maire commune bi muy euh, kilifa yi fi nekk yëpp ñu ngi jaale njaboot yi ci am ay jafe-jafe di leen ñaanal yàlla xaare leen arjana ndax ku jóge ci conditions yi métti yam am nañu yaakaar ke yàlla nañ la teeru ci àddina fi daw si di ñaanal aussi ñu ci jële ay gaañu gaañu yàlla fëgg leen yëkkati leen ñu dellu seen liggéey ñuy rafetlu liggéey bi nga xam ne sapeur pompier def nañ ko fii militaires yi def ko fii FDS yëpp force de défense et sécurité def ko fii ay yeneen naataangoo yu bokk réew mi aussi def ko fii loolu mooy Sénégal benn bopp la kenn mën na ko xar ñaar ñuy fàttali aussi am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy amal président ne ñu gaaw ci lool ci wàllu protection civile liggéey nañ ko ba pare daanaka dañ ko war a jébbal euh, conseil interministériel jébbal ko président dans le cadre d'un conseil présidentiel yóbbu ko conseil des ministres ngir mën a jël ay dogal yu mucc ayib ci wàllu protection civile. ci wàllu bâtiment yi nga xam ne aussi dañuy menacer ruine am na liggéey bu am solo buñ ci amal ak administration territoriale bind nañ leen identifier nañ ko seen i gox ba remonté ñu information yëpp.

dinañ xol lepp li nga xam mo ci xew ku ci def lo ci warta def yoon dina dal sa kaw ñuy jaal ñep di balu ñep ak di bal ñep ak di gërëm ñëpp di sant ñëpp leen ziar di leen sant leen gërëm. de l'affaissement d'un immeuble R plus 1 en réhabilitation ici à la cité Cypress dans le département de Rufisque. Automatiquement, nous avons fait le déplacement avec le gouverneur de la région de Dakar qui est là depuis ce matin. Et sur place, le préfet nous a accueillis, le maire de Rifisque, le maire de la commune de Rifisque-Ouest, l'imam de la localité, le délai de quartier. Bon, sur place aussi, nous avons constaté des visites, la présence du génie militaire, la présence aussi de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, la présence de la sococine, des facs, des privés et de compatriotes. En termes de bilan, nous pouvons retenir qu'il y a eu 13 euh, euh, victimes. 7 ont été évacuées à l'hôpital Yusumbergan. Une victime a été sauvée et évacuée à l'hôpital principal de Dakar. 5 corps ont été extraits des décombres. Donc voilà la situation exacte. Donc au nom du chef de l'État, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Nous souhaitons également un prompt rétablissement euh, aux blessés. Bon, ça repose le débat aussi sur l'importance de la protection civile dans notre pays. Et c'est l'instruction du président. Nous travaillons sur la, pour la stabilisation de la stratégie nationale de protection civile qui sera très prochainement présentée en conseil présidentiel en Conseil des ministres pour que les décisions aussi urgentes et adéquates soient prises sur la question. Parallèlement aussi à cette stratégie, nous travaillons sur l'identification de tous les bâtiments menant en ruine, sur toute l'étendue du territoire national, sur l'érection de la direction de la protection civile, conformément aux instructions du chef de l'État en Agence euh, nationale de la protection civile, sur également l'érection d'un centre national euh, d'alerte précoce et de risques sécuritaires. Donc voilà les urgences sur lesquelles nous travaillons. Donc encore une fois, nous remercions le génie militaire, nous remercions aussi la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui ont quand même fait des efforts extrêmement importants. Ce n'était pas évident du tout. De 9h jusqu'à l'heure où nous parlons, les privés, FH, la SOCOSIM et d'autres structures aussi privées, peut-être qu'ils se reconnaîtront, et les compatriotes, les populations de C'est une situation déplorable et regrettable encore une fois, au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement et de toute la délégation avec laquelle euh, je suis ici, le gouverneur de Dakar, le préfet de Rufus, le commissaire, euh, le maire de la ville, le maire euh, de la commune de Rufus-Ouest, le délégué des quartiers, l'imam. En tout cas, au nom de toutes ces personnalités, de toutes ces autorités, nous présentons nos condoléances encore une fois les plus éplorées aux familles des victimes et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Bon, certes, normalement et logiquement aussi, euh, le travail nécessaire sera fait en termes d'enquête. Les responsabilités seront situées et les sanctions aussi seront prises euh, conformément aussi en tout cas aux, fautes commises. Wow, Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.